man Ousmane Noël xawma ku dul jël kuy and ak man man ngay andal ak jël Farba Sarr kuy and ak man parce que man awma kilifa Kaolack ku dul jël Farba man je suis le patron de Kaolack lima man mën ken munuko lu jël Farba def Kaolack ken def ko soit nga and ak man soit nga and ak ki nga andal waye man jël Farba la xam. nañ wàcc ci terrain bi dimbale président Macky Sall ndax gàcce weesuwul gàcce weesuwul li ma fekk fi kabatoo ñu ne kabatoo ki fi mu ay poste yu responsable nekk fi ak du ñu toll ay ndoma tànk ñu ne amagul ndox ba léegi gàcce la gàcce weesuwul gàcce weesuwul ñu am ministre de la république Kaolack am ay ministères am ay directeurs généraux kaba toog ni ngeen doonee jàmbaar suñ poli ni ngeen nekkee jàmbaar ñu ne fii amul ndox gàcce la man Ousmane Nalal yoruma benn poste responsabilité du ma maire du ma député duma ma directeur yàlla laa bi bëgg liggéey liggéeyal kabatoo gi liggéeyal la kon weesuwul nga am gàcce nga dëkk fii ndekk Kaolack président Macky Sall jox la ay poste de responsabilité yu gën a mag ñu wàcc terrain bi jëm koo dimbale ñu ne Kabato gi amul ndox yéen bu bu soo buggee ndox da ngay dem ba fee wala mbir mi nga ji doot loolu gàcce weesul loolu. te loolu ma ne ma ne leen nax bàyyi leen ñu la ñu nax. nañu gëm suñu bopp yàllaa yor jaam buñ di naxee ay ñetti pot lamp wala ñetti caaku ceeb ma ne ma ne nguur nguur daa am doole nguur daa am doole benn fatu su rek laa wax ni buñ bëggoon ndox bi yegg si fii barki Cheikhu Tidiane buñ bëggoon ndox bi yegg fii billaay wallaay taala benn fatu su ndox bi yegg fii bu kenn sàmm sa poche nga dem ñu mosol la nangam wala mosol la benn ñeent fukki junne wala mosol la benn quarante mille cinquante mille nga tax a naan waa Sallaaw ah, gañ ah, waaw waaw nañ bàyyi du ñu nañ bàyyi du ñu nax maa ngi oo les leaders de Kaolack wàcc leen ci terrain bi dimbali président Macky Sall mooy tax président Macky

jël formation Sarr ko def directeur Idrissa Tall jël Farba Sarr ko def ngir ay des jeunes yu liguey yu dul jeex créer na len fi ci Kaolack nangar et donc bo gisee lew nañu sen jël formation ko defar nga dem mer bay jël formation Sarr ko defar nga dem fo gis jël formation Sarr loxo ba fa rek et donc bo amé poste de responsabilité da nga dimbale askan bi jël formation Sarr ba ci lolu créer na ben jeune jeune bi di financer famille dugg ci gox liggéey ah waaye ay complot ay naxe mbaay président Macky Sall gagné man mii ne toog président Macky Sall moo ma jël président Macky Sall moo ma moo ma recevoir bureau na ma Ousmane Dawal yow laa yaakaar Kaolack gis ngeen ko yéen gis ngeen vidéo yi kon président Macky Sall kon président Macky Sall boo amoon confiance si nit ñi du ma woo ma bay ndaw ne ma yow laa yaakaar Kaolack barki Cheikhou Tidiane kon lii lii gàcce la fii pays bu baax la ay nit ñoo fi dëkk ñun ñu baax sama yaay dañoo baax sama baay yi dañoo baax ay góor lañu kon bu ñu yoree ay poste de responsabilité dëkk fii nañ indi ndox mi ndox mi yomb na nañ ko indi ñoom ñoo ko war a indi nañ indi man ndox du sama responsabilité ah ah ñu ngi fii am ay poste de responsabilité buñ tàkkee seen loxo ndox mi ñëw dara si indi ndox bi naka li ma mën li ma mën mooy li ma yàlla dénk ci wërsëg ma bokk ko waa Kabatoki